alors père ñu ngi leen di. maa ngi lay fay. maa sant yàlla bu wér. tey jii na ngeen préparé seen combat lu xam ne lu si des sax fu mu toll nii bëreetul mën nañu wax ni deux semaines rek moo si des rek. mais ñun ay professionnels lañ ñu boonu yowoon suba sax nu bëre. Ah pare nañ yàgg na. c' est pas du du toog ba le source rek ñu commencé di entraîner. combat bu avorté depuis daaw. mu leen ne da nga bëriwaat. mu naan la foo ci toll xam nga ne kooku. noonu doxuñ ci loolu. combat bi mu avorté bañ koy entraîné si nañ boobu ba léegi teggu tànk suñu tànk ci entraînement ñu ngi def guddi ak bëccëg pour mu wóor ko ne booy bi kon yàlla dogal na taxawaat na ba def naa li ci ah fi mu nekk complément moo des mais lépp lu mbër def pour daan ñu ngi ciy xëy ñu ngi ciy gont waaw. fu mu toll ni combat bi muy poisson ak Siteu bu fekkee ni maanaam si bëre la avantage poisson la mais fekkee si xeex la avantage Siteu la est ce que noonu ngeen ko jàppee. papa moo daax xeex Siteu Siteu dernier combat dafa dóor saa mu daan de. kan la dóor mu daan kan. Euh, dernier combat moom ak euh, kan la dóor bu daan sax ak Zos. Zos mais dóor mu daan moo gën a yomb ci làmb dóor mu daan kafiya sax mën nga mu daanu xeexu rëbine dóoral ma dóor mu dal fu mu war dal nga kaaw loolu moo gën a yomb ci làmb dóor mu daan moo gën a facile ci làmb man jamono ji ma doon bëri dóor gaa ñu daanu jamono ji ma doon bëri damay dóor ñuy daanu. parce que am ñoo xam ne xam ñu bu cafouillage rek booy dóor ñu daanu kon dóor mu daanu moo gën a fas ci làmb du gàllaaj du mën a xeex dafa gën dàqu xeex dafa xoolal tonnerre yi mu bëril dafa fayt ñoom dagaa réel la bërekat la waaye déedéet. mais beneen inconvénient bi tit ñu ko xam ne Sénégal yi ñoo koy ñu di Pastef dafa gëj a bëre est-ce que loolu mu nekk inconvénient si moom. daa gëj a takk la engrais bu dem ci arène bi mais chaque jour mi ngi bëri fii ay naanaan rek lay bëri. est-ce que c'est la même chose fee gën a garaw làmb gën a yomb ci àdduna at bi pare nga mën a par naam suuf la nga bëri moo gën a facile xanaa xam làmb moo gën a facile lépp ngi fii loo amul fii bu demee arène bi doo ko am si loo fi amul bu demee arène bi doo ko am seen ak université benn la. c'est pas la même chose. fii mooy bi. université baa ngi nii <laughs> boo fi jógee bi da ngay dem seconde rek ah. ñu gis présence Modou mu nga ñu wax ñoom ñaar seen relation. bokk ndey bokk bàyyi déggoo nekk benn na waa 100 pour cent bi ñoo bokkoon ndey bokk bàyyi yàlla def 100 pour cent bi ñëw mu gën a riche gën a pur ñu ñaan ñu ñaanal ñu ci cat bañ ci dugg booy dox dox bi loolu daal la ñuy sàkku. Modou Lo mu ngi préparé mais combat bi na lool. Modou chaque jour jëkk fee mi ngi préparé. mais léegi combat bi moom la tagee. non tagewul ci moom parce que feebar feebar la. doomu aadama bu wérulee du bëre Modou moomul boppam moo Modou médecin moo ko téye bu ko joxoon dirigeant am na ko demal ba dem bëre ji mais quand même du tey la du du tey mi def maintien te bu dee livre dirigeant day livre dirigeant bu ko sëgal bëre mu sëgg bëre ci ndigal lay dox ci ndigal rek lay dox nag. mais instant yi ban état la nekk est-ce que xam. waaye plein dañ. kon instant yi wér na allah ñu ngi sant yàlla baax parce que bon. mi ngi def lu mu mënul woon kon donc am nañ yaakaar ci na mi ngi wér. est-ce que mën nañ jàpp ne combat bi année euh, saison deux mille vingt deux deux trois bi Modou Lo ak Ama Baldé dañ si mais mën na bëri ci saison bi saison bi mën na bëri Modou pare na pour bëri Modou mën na bëri saison bii mosu suba boo ko jox avance sax mën na bëri mais bu ñu ko joxee mu dem déposé ko CNG pour mu sëgg bëri. non kooku dara parce que mi ngi liggéey lu bëri lu ko lu ko tax a a bëre. kon lan ba léegi déposé wul kayit bi. non parce que médecin moo ko nga am na ay réglations ndaw yu si rek. yoo xam ne moo tax jox ko dossier bi mais bu ñu ko jox dossier bu déposé day bëre. parce que fi mu nii mi ngi def maintien te xam naa ne pour mu pour mu accélérer du dara parce na ko. message ba ngay jox si te ban message lay doon. mu ànd ak teggin rek ndax sama doom la comme ni papa amee yar teggin. mu mu mu mu mu mu mu waxtaan ak waa këram ñu am discipline parce que bu fekkee da nga ko laa bëgg li muy mu jar la nga bàyyi si liggéey topp ci ginnaawam lépp lu koy yàq war ko daw. nañ jàppale seen mbër ëmb ko ñëw ci làmb ji supporté ko seetaan arbitre bi soufflé yàlla mi nga xam ne mooy kiy maye ndam ku may ndam. nga ànd say bokk sibile ku may defet nga ànd ak say bokkit muñ te xam ne yàlla mooy kiy maye làmb ñaari ndamay dugg mais benn génn loolu daal laa koy dénku waaw. merci beaucoup père. merci fils. merci beaucoup merci fils. merci. ok.